asalaamaaleykum mbokk yi sa for Sane Xass TV sëñ bi maa ngi lay nuyu waaw euh. ah, mais sëñ bi. tey moom ci combat bi laay ñëw ak yow franchement parler une des sa une semaine moo des xaw ma sax matu sa une semaine. ah dimb damaa gis. Siteu. Mm-hmm. seetaan nga seen dernier jàkkaarloo. moom Modou Lo gis démb gis naa ko mu nekk biir conwaar yi yéeg si fas bu weex tàll di doxantu. tegtal la sarax la walal la ma bàyyi la nga nuyoo bisimilah. Barancel ma bañ laal dégg <laughs> waaw yii dama ko may ay nit. salaamaaleykum wa rahmatulah sant yàlla julli ci yonent bi. Hmm. ginnaaw bi ñu ko defee di di di di remercier. Hmm. féliciter Pastef ci hmm. ci ndam li. di ñaanalit opposition bi it sunu borom may leen xolu muñ. te xam ne àdduna it lu jeexul jeexul. olof nee na lu jiba jugu fa. lu jiba ne waxoon mooy taxan jiwu jugu fa. mooy yëf yaa mm, wax rek jaw zone mm. euh, Sonko am na lu ko yàlla defal may na ko ko waaye nag Sénégalais yi dañ koo sas. Mm. dañ koo sas. xam nga olof dafay wax ni. ku la dénk arme te joxu la ngànnaay ba nga koy bay tiire bal ba jox la fitalu kese. kooku tiireeloo la waaye ku la jox fital teg la bal ba kooku da laa tiiriloo kon Ousmane dëkk baa ngoog na dox nag incha allah yàlla defal leen ndam Sénégal mel ni meilleur pays Afrique du monde incha allah yàlla nañ ko yàlla defal. jaw ci komba bi. Ah. sànq xam nga nag jaw mooy daal ndakaaru yaa yaa ma ne da nga gis Siteu mu yor fas bu weex. fas bu weex jàmm la. si si xel mu dal lay taxawee aussi. ngir ngir ngir li ñëw bañ a wëlbati ko am na lu ñu ko déy nag waxuma nag da dama la wax cadre mystique laa wax parce que boo déggee nit ni la utal xaru xaru benn melo bu weex wala fas bu weex mooy musiba bi war a ñëw du la laal est-ce que dégg nga wax bi wala lu la sànni ci loolu la jëm moo tax gis nga sarax vice versa jaww sarax bunt la waaye day am caabi léegi dafa am buntu yoo xam ne amuñu caabi boo ñëwee rek tijji mu tijjeeku mooy sarax universel waaye dafa am buntu yoo xam ne dafa am caabi am loke comprendre nga <laughs> waaw léegi nag boo dugalee caabi ja bu yéesee bu manqué baaxul léegi boo jëlee caabi bunt bee bëgg koo tijjee bunt bii du tijjeeku mukk mooy ku ci nekk ak saraxam ku ci nekk ak yëfam waaye nag am sarax yoo xam dafa wër wër yi mu wër c'est très important jow xam nga xam nga sutura sutura yaa ngi koy ñaan mais dafa am sarax boo xam ne soo ko génnee waaye nag da koy génne deux kilos cinq cent da ngay dem xam naa ne nag fii moom di nga gis tey sëriñ su bëri te kaay ma la jaw nit buy dem ci dara. bu ko génnee. Hmm. wallahi yàlla da ko ci defal sutura. mooy deux kilos cinq cent supame. supame. Mhm. deux maa la ko wax waxuma nag mu ëpp mu yées de deux kilos cinq cent mu taxawaay ñaari tànk livre bi mooy li jiitu xam nga nit ñi boo leen rek leen wax ci xel pour ñu man cee. xam suppame tey boo doon dindi dangay ngay dindi rek waaye doo leen tàkkale ilaa yow mi di daa bëri mbubb moo tax soo koy génne yàlla da lay defal sutura ku nar a xawi sa sutura moom mooy moom la suturaam di xawee mooy deux kilos cinq jaw kaaraange li ci ëpp xam nga lan la ñam bi saraxam si te <laughs> est-ce que xam nga ni boo koy génne sarax. waaw juróom-ñaar yi laa wax nag juróom-ñaar yi rek njàmbi. doo waaw doom ya. gis nga boo koy génne sarax. dalay samp ñàmbi lan la bant moom nga samp mu génn ay reen ci suuf te pourtant benn bant nga samp. te reen ñaam bi. doo dàq dangay gas rek nii lay def mën ko ko parce que bant nga samp waaye reen ba tas na ca suuf pour nit jeex la jàpp la dafay jafe. moom ñaam bien sûr pour nit liggéey la dafay jafe. waaye juróom-ñaari waaye ku ko génne altine di nga ne xaas waxoon na ko bu dee ci kaaraange àllarba nga koy génne àllarba mooy mer creux. di léegi bi ci gën nag waxuma nga woote ñu génneel la de parce que boobu ci loxo la dégg wax bi boo bëggee tey par exemple nit bu la doon fexeel nga tëdd ko ci gént mooy mardi nga koy jënd ci guddi fanaanoo ko nga xëy mercredi nga génn ko sarax hmm? bu dee dangaa bëgg jaw bu la demalee yóbbu xam nga jaww féticheur ba ak sëriñ Babacar si ba mu bindee ci Aliou Xànjar ba hmm. lan la ko féticheur bëggoon a liggéeyee mbaam xuux day leen astaxfirullah def nañ ko indil mbaam ñu indi mbaam ñu rey bi ñu reyee mbaam ma gisuñu xool ba ñu indiwaat beneen mbaam rey gisuñu xool ba mu ni ah féticheur bi jaaxle bi ñu utee beneen mbaam rey fekk fa xol ba ñu jël xool ba bind la ñuy bind teg tur ba dugal turu féticheur ba féticheur bi daal di faatu ci sens yi kee daa ka ka demoon liggéey ko daw ci sëriñ Babacar si ba mu ko wax sëriñ ni ko bi ngeen ñëkkee tëral mbaam mi xol bi maa ko jël teg fii ngeen defaat ko ma jëlaat xol waaye ñetteel bi laa xam ne dangeen ngeen may fontoo moo tax ma jox ndigal xalima bii bind dégg nga wax ba pour mu dugal sa tur bañ a dugal sama tur mu ni waa ji mënoon naa def sa tur ci sa côté yow waa ji dem waaye du ko def dama ne da ngay bàyyi ba nga ñëw ba ma wax la ko ba pare léegi noo jàngatee loolu mooy ci li naan xar baax a man xërëm. gis nga yow. nit yàlla yi Sénégal am. munuñu leen a fay. mukk mukk ñun. dañoo war a bàyyi xel. te gis nga sarax yi ma la wax lu mel ni ñàmbi tey. boo ko jëlee bisu mar mardi nga fanaanoo ko mercredi nga génn ko. nit du la fexee lu la bett. te lum la fexel du ci am ndam ndax mooy kaaraange dana jeex rek waaye pour mu jàpp la dafay daal di jafe léegi jaw moytu da ngay fekk dama gis dama bu gis ñu envoyé benn vidéo waa ju génne loo nit saraxu cere ma ni ko teeyal cere c'est dangereux te saraxu te saraxu cere waxtu tàkkusaan la te dafa am lu tax nga war koo mën a génne tey saraxu cere cere bu fekkoon jaw dafa nekk ci jafe-jafe yu rëy a de maara day taali mu tiit ci jaaxle lool dugub dafa garaaw dugub li mu composé dafa bari léegi ñu ne la saraxu cere boobu mais yàpp bi nit ki di da nit ki waru koo teg bët dafa war a lekk rek ba daj yàpp bi ci suuf moo tax saraxu cere da ngay suul yàpp li tax nga koy suul mooy wax bu wax bii nga xam ne mu ngi jëm ci yow te gënul kii lekk te yor gémmiñ moom da dem ba daj ci rek daj boobu mu ngi ci daj mooy téye wax ji ba du agsi dégg nga ma jaw <laughs> suul bi mu suul yàpp yi kii lekk daj boobu mu ko daj xam nga foofu ko woon waaw looloo la dimbali yow ci wax ji war a ñëw te lii ci gémmiñ la duggaat loolu mooy saraxu cere léegi nag boo ko defee te waroo koo génne mu indi la musiba boobu waaw. ah attention sarax. fii c'est très dangereux sarax baax na waaye am na musiba xam nga xam nga tey par exemple man sa samay émission moo tax ma man di topp am na kuñ compte bu ñuy wax macha allah nag ci lañ may envoyé vidéo yi lu bari waaye nag xam nga dëkk bi dafa doy waar. <laughs> Euh, waa Europe bi des fois ñu envoyé ma ni ma yaa wax lii ci sarax bi wala yaa wax lii moo tax ma ni kii nag di jënti contact kooku dafa am solo jaw baro dafa laaj ni ñam bi kan lañ ko war a jox dama ni la bépp sarax bu jëm ci ubbeeku rek jigéen ko moom. ba bëgg mu yaatu moom. mu yaatu jigéen jigéen moo yaatal. moo tax ñoo ëpp góor ñi. léegi nag bu dee ci làmmiñu nit ñi nga bëgg a muslu da jox li gën a yaatu kon jigéen a moom sarax mi. léegi li nga war a laaj mooy mag nga koy jox wala xale xam nga dafa ñoo xam ni ci seen jëmmi bopp rek xam nañ ñu moom mag ñi dañ leen a sopp lool waaye ndaw yi ñoo leen soppul nga jox ko ndaw bu dee ndaw yi soppuñu la mag ñee la sopp nga jox ko mag leer na gerte bu dee bi ñu toj ba pare nga jënd ko baax na waaye bu dee bu ñu tojul coow la <laughs> yow mi tey. ma wax la. Ah. tey bu boo bëggoon a jat bi gën a gaaw nga bëgg a génne nit. léegi lan moo tax nga toj benn bopp bi du tojaale turam toj benn bopp bi du tojaale turam ba mu mat lii liibar barke alxuraan buy koy génne ci turu kooku bu dee société mu génn fa bu dee fu muy liggéey mu génn fa bu dee sëy mu génn fa lan moo la sabablu moo tax waxuma lañ cey wax parce que gerte dafa tàng ah, ban ban heure la ñuy la la la gerte di ñor moo mhm. moo tax gerte tànk moo tax gerte tàng tàngoor lay ñor tàngoor nga koy bàyyi moo tax gerte doy waar léegi bu dee kemb bi nag kumpa la jaw hmm. nit dafa war a def ci boppam loo xam ni hmm. <laughs> da faral di génne moo tax des nit ñëw ni nit ñëw ni la man daal léegi-léegi ba pare waa te dem ni waa man lu ma wax loolu ki fonk sarax day am sens boobu <laughs> waaw xëy naa génne vingt et un kilos euh, mburu dama lay wax rek pour wax la njëriñu sarax def beurre def sokolaa génne ko yóbbu ko daara lan laa ci jublu man ab laa Diop Khass pour sama rawxaan di exister tout le temps léegi lan moo tax joxuma ko mag ma jox ko daara ja rawxaan lu sellu la soxla rawxaan lu set la soxla rawxaan lu leer la soxla léegi nag boo ko yóbboo fa ñu jàngee alxuraan jox ko xale yi day gaaw a nangu sarax boobu damay wax pour yeete pour ñu xam sarax ñëpp ko war a génne man tey génne naa tey parce que tey la altine jaw xam nga ban sarax mooy futti nit ba mu set wit ni leen mu ngi nii ah, <laughs> xam nga mooy ban sarax nen bu xonk nen bu xonq. moo mhm. gën a gaaw toroxal nit. toroxal nit. waaw ah. lu bon lépp lu xonq lañ koy jëfeetali. dëgg la. moo gën a gaaw ci tëj wërsëgu nit. allahu akbar. léegi li la war a jaaxal lu tax bu weex bi di tijji ba nit bu mënul am doom nga mën ko cee génneloo ngir bu ñu tojee la ca biir moom li ci biiram dina ko gis mais lu tax lu xonq toj ko ci. parce que am doom bi nit ki la. moo waral bu dee jigéen ñu ni la jëlal yére bi nga gën a fonk nga bàyyi ba bisu jeudi nga julli ñaari ràkk nga génn yére bi sarax parce que yow nit ki la te yére bi yow la moo tax wax jëla bu bees de bi nga gën a fonk nga génn ko bisu alxamis léegi koo bëgg a tëj biiram nga ko génn treize nen yu weex moo tax nen yu xonk moo tax ku ñu sarax nen bu xonk bu ko jël man mun naa jël musiba tuxal ko ca léegi. non il a guro gu ànd ak puso kuñ ko jox bu ko jël nit de jël na xoolal jaw bu la nit ne am maa la sarax dàll bii ak paquet puso yi ak guro kii dóor ko kur feñ boo xam ni xoolal bu ci daj police xam nga xam nga lu mu ci jubal ah. lu mu jublu sa wàllu wërsëg li doon dox lépp moom musibaam dal na ci sa kaw sa jàmm jël na ko allahu akbar ay bu xonq ba ah, ak puso bi ak puso ba dàll lan mooy doxali mbir booy dox ci looy sol dàll puso bu la jamee looy yëg eh, eh, eh, deret du génn guro déedéet xam nga loo àndoon la ka ko jox da koy tàkkale léegi boo boolee ñett yooyu yëpp nga jox ko nit nit ki jël foog ni bi est-ce que xam nga ni bëri ñu ñu doon tabax àgguñu saraxa tax àggul bëri na ñu amoon oto amoon oto sarax ba ñu nangoo tax àggul bëri na ñoo xam ne seen avenir noroon naa dox moo tax sa doom wala jamono bi bu njëkk xam nga la mag ña daan saraxe mënul lor kenn euh, dugub mm. nag Euh, wala togg ceeb kaa leen lekk ak yooyu parce que boobu yàlla lañ ci doon wut waaye léegi ku ci bàyyi sa doom yii man dama yërëm taalibe yi des fois taalibe bu dee ci accident wan des fois nga gis ku ci oto mbëkk sarax yi bon des fois ñu jox leen ko moo tax ñi yël joxe sarax yi bon yi nañ bàyyi seen xel dafa am xam ne sarax yoo musiba la tudd musiba musiba nga jox ko nit kooku yaa ngi koy yéene musiba kon nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu danger bay bu ñuul baaxul ci sarax waa léegi su ma jëlee bëy bu ñuul bi teg ma dem ba géej ma ne sama rab yow mi ma jàpp doxale naa bëy bi sama diggante jël ko te bàyyi rab bi jël bëy dem xam nga si ñu ngeen benn compte waa léegi dafay dem toogaat ba ci yàgg yàpp bëy bi mu ñëwaat nag gën laa sona lati ki la ka ba muy rey it loolu la yéene même bu ca waxul lool loolu la yéene parce que dañuy pour rabbi nga naanal ko jaw da ngaa maroon am ma may la ndox ngir yàlla te nga bàyyi kii kooku mu ngi lay lor deuxièmement jaw ceeb bu xonk am na ñu koy faral di génne sax daa lu ko tax a jug de <laughs> waaye waaye bu weex bu bari fruit yi boo xam nii lépp na ca nekk oh, lu ko gën ci sarax it amul bu weex bu am firi lu ko gën ci sarax amul waaye bu xonkee xam nga noo koy xalaatale ah. da ngaa am loo ca def tax mu soppeeku léegi loolu soppeeku am na lu ko tax a jug am na lu ko tax a soppeeku tey tey boo jëlee ndox def ci du ndox kese ah loo ca def ndox jëmmi ndox ñi ñëw waaye boo soppee ndox ma est-ce que tax nekk dina ndox mu weex ndox ma soppeeku na kon la ko taxaw a soppeeku loolu la. moo déedéet déet maanaam boo ci jublu te yàlla tax waaye bi ngay def sarax xam nga tey su ma defee bay génn sarax am na lu tax ma def ko waaye bi ma def fii sabilillah mm-hmm. boobu soxlawul leneen dama ko def ngir yàlla kooku amul lu ma ci def nu ma ko sentir rek laa koy toggee ah dama déggoon mag mu baax sëriñ Abdul Ahad Mbakke mm-hmm. mu ne xattaa ba ci sa yére parce que bon gi nit ñi bon tax mu ne ba ci sa yére léegi boo koy mayee yéene ci sarax lu mu la def ca kawam lay këpp. Mm-hmm. am si yéene sarax ne la ko jox ngir yéene mu def rek ci kawam lay këpp. moo tax yéene lu garaaw la wala yéene sarax da ngay yéene. mais bu dee laax. Mm. defal baax na. Ah, toggal lu la neex defal. Mm, woowal ay xale ñu lekk. rawxaan ya wax naa la ni fii meew boo koy yëngal mu tuuru soo boo koy siiw mu tuuru. parce que rawxaan yooyu dañuy exister. te dañ koo bëgg moo tax laax baax man de laax dama ko bëgg di ku ma ko jox ma lekk ci ma yëpp waaw ah! xam naa rek rek moo tax gars yi faju fi ñoo comprendre rek waaye ku toggoon laax bu baax eh. dem ci raisin ni xaama yóbbul xaas ah. léegi ma yëkkati la c'est c'est secret secret la parce que bu may lekk laax bi ah. ma ne ana ku ma ko jox ñu ne ma ñu mu ci biti bu toogoon ci puusu sax day jóg parce que laax bi daf may daf may sufe wala yow mooy bi bi ma mujjee wax ni ah, laax. dëddale la ñuy dëddale nit. waaw ah, dëddale nit ak nit dëkk rek jabar. pour lan la tàngoor. pour lan la xabtal parce que dëddale boo ko déggee mooy xabtal. pour ñoom ñaar ñu xat. ñoom ñaar duñ mën a nekk. bu kii jigéen kii xol ba tàng bu kii jigéen kii kii waaye loolu nag rab daf koy def. bu dee bu rab bu dee bu rab da koy gis ku góor gi xol bi du ko mën a maîtriser ci ndaw si ndaw si du mën a maîtriser est-ce que xam nga ni sa yére bi rafet na rek mën nañ cee dóorante ñoom ñaar parce que dañu dóorante pare ku góor gi doon waa man lu ñàkk fayda lii laa parce que du moom ci lekk xel lawal bi sedd naam seddul mën nañ cee dóorante fekk dëddale yi dugg na Ah. moo tax jamono bi damay faral di wax ni sëy yi lañ war a ñàkk ànd yi sax dañ ko war a ñàkk est xam nga jamono bi ànd sax dañ ko war a ñàkk ah, di ànd ak nit fii sabilillah maa yow kenn mënu ci dara <laughs> kenn mënu waaw ya waaw waaw na léegi te te may ñu tuuti rek dégg nga man na ngeen baal ma de xam nga nag man su may wax émission su ma woo dama wuyu ah, eh, am na appel yoo xam ni mënul ñàkk surtout nga yónnee woon ah yaa ngi dégg. xam naa Ndeye Fatou nag dina jaaxal nit ñi nag ba la ñuy foog ni ay ay ay ay ñi xam-xam nañ ah, ñi xawul xawuñu. Ah, ndeysaan looloy àdduna. Ah, yaa ngi dégg jaw ah beneen appel digg na di dégg nga. bii ma foog ma jël waaw allo waaw. waaw pare waaw maa ngi yoon ci émission bi léegi ma pare. <laughs> d'accord léegi sëñ bi euh, nañu ñàkk sëy yi ñàkk xarit yi ñàkk liggéey yi xoole jamono bi sa tool nee naa la boo ko boo ko yoree ñàgguloo ko wallaahi loo fa ji ko jariñoo nañu ñàkk baro barke Seydunaa Muhammad jamono bii ñu nekk dogul naa la ci alxuraan sa doom sax boo ko ñàggul ñu tàkkale leen léegi ñàkk bi koy ñàkk sa doom laa la wax de da ngay maye doom jëkkër ja dëddale leen pour mën a am jàmm man dama ko gis. allahu nit dafa ñëw ni ma papaam moo ma sonal ma bëgg ndaw si bëggu moon mu dëglootu léegi bëggatuma sax papaam woo ko téléphone. am na ñu koy def ci yaay am na ñu koy def ci doom ah am ñu koy def ci sa xarit am ñu koy def sa oto sa oto mën nañu laa dëddaleeg moom. billaa walaay tallaahi taayel mu def la taayel rek boo ko bëgg lu jublu rek taay yaram bi taayel nga ne xaaral ma jël taxi dañ la dëndale ak moom. waaw xam nga dëndale ñaar la xam nga nag am na ci loo xam ni day am tooke day des ca yaram ba foog yaram ba daal di deñ waaye sarax mooy défensif boobu buñ ko sànnee du agsi est-ce que dégg nga wax bi moo tax. Hmm. Euh, xam nga basé wu ci sarax di ci di ci yee nit ñi parce que man dama gis ñoo xam sarax dafa yàq seen àdduna gis ñoo xam ne rab bi ñu àndal sarax bee tax mu tëju seen yaram ba mënatul génn. rendez parce que da ngay rab ni la. Euh, pourtant maa ko génneloo sarax boobu moo tax ba mu ko defee pour ma mën a toog léegi nu koy def da ngay gis mu daal di koy paralyser loo tëral ko benn place nga gis ñoo xam ne rab ba lañ génne rab ba. moo tax sëyituñu ba tey fu ñu sëyi ku ñëw demaat fekk xawal rab baa ngay xàqataay mu ndëkk di génn sarax rek. waaw waaw gis nga nag boo waaw boo géntee lu la jaaxal. nga tiit ca. da ngay ah, génne limon sarax nga door nga door koo wax. du la wàññi du la wàññi dara. doy na nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah.